ci image yi borom këram mi ngi liggéey boobu ba léegi mais munul am dara vraiment munul am dara loolu nag nekk na loo xam ne lu lu doy waar la euh, je pense que ñëw bi ñu ñëw fii aussi kër euh, xalif général de jinne dafa am solo parce que fii defe naa ni boo fi ñëwee rek sa ajo faju na ci bépp fànn nag donc nee na nee na moo ko dagoon fii ci accident bi également gis nga ci image yi ngeen di gis nii moom lay wone gis nga nee na moo ko dagoon fii également yéen gis ci image nii gis nga borom këram aussi également gis nga dagg-dagg yi muy wone borom kër lii yëpp ay gaañu gaañu la lii yëpp def ci jubloon lu dul faat bakkan ku jigéen ki moo taxoon mu mu mu def lii yëpp donc ngeen gis ko ci image yi mu nekk ay mbir yu yéeme yoo xam ni lu doy waar la waaye damay wax que ni rek fii kër xalif général euh, des jinne di kenn mu lay sow ku fi ñëw rek defe naa ni euh, combat boo bëggee boo boo mënee rek balaa ngaa génn ci kër gi dina la daan. léegi léegi euh, léegi léegi jëkkëram face à léegi yow léegi léegi dama bëgg nga wax ak jëkkër may ñu léegi dama bëgg nga wax ak jëkkëram yow kan nga yaakaar kan nga jàkkaarloo. kan man jàkkaarloo waaye nit laa jàkkaarloo. sa kii sa jabar wala du sa jabar sama soxna ah? kan ngay waxal ni sa soxna ngay waxal wala. jinne du ma am de. ah sama soxna la. Ah? jinne laa wax jinne laa wax nii importance. yow léegi waxal ak jinne bi ne mu bàyyi sa jabar waxal ak moom yéen ñaar ma xool ba xam dina mën a bàyyi sa jabar waxal ak moom. Eh. bàyyi sama jabar. mënuma koo bàyyi. lan moo tax mënoo koo bàyyi. dafa kaa bëgg xale bi daaw am wërsëg daa rafetoon maa yàq àddunaam. lu tax nga yàq àddunaam. na parce dama koo bëgg. mu bëgg la ma bëgg a yàq seen diggante munuma ko moo tax ma dugg ko di ko toroxal chaque jour ngeen xeex ak ko xuloo maa ko waral. waaw chaque jour dañuy xeex ak xuloo ko parce que man sama soxna la mais lu baax rek laa koy defee mais saa ma liggéey ba wàcc lépp lu am dama def ci mais su ma ñëwee day xeex di xuloo damay fekk sama mère xaw ma lu muy mer. léegi xuloo boobu soxnaam lay xeex ak xuloo wala yow wala yow jinne bi lay xeex ak xuloo. man lay xeex xuloo waaye day mel ni jabaram lay xuloon da xamu ci woon dara. waaw. yow yaa ngi ci jabaram lan moo tax mu xam. waaw keroog da doon seetaan sa téléphone téléphone am la doon seetaan say clip ma commencé génn sama kanam gi commencé changé ma daal koy dëpp mu bañ mu xam ko moo tax ma dëpp sama kanam gi pour mu bañ kaa gis si laa xuloo weeg sax yaayu jabaram xuloo bu métti ba ba naroo xeex ak moom. yow jinne bi nii yaa xuloo yaayu yaayu kan. jabaram waaw. léegi yow lan moo tax ba ngay seetaan samay vidéo ba muy seetaan samay vidéo la lan laa ñemewul. bëgguma woon nga xam ma. donc euh, la scène on voit le djinn qui hypnotise qui possède cette femme qui vient de dire qu'il s'agit d'un chat noir donc les djinns si vous comprenez donc les vidéos de Thierno Moulay Sow le khalife général des djinns. donc vous verrez que vraiment les djinns prennent beaucoup d'apparence certains. peuvent vraiment être des lions, d'autres du feu, d'autres un tigre, et bien d'autres des serpents, et d'autres peuvent être même des chats. Donc le djinn qui est là devant nous vient de dire qu'il s'agit d'un chat noir. Donc vraiment incroyable, ce djinn qui a essayé de tout faire pour empêcher euh, vraiment au mari de la femme de s'épanouir et qui essaie tout simplement de détruire les grossesses de cette femme. So in English you can see that this jinn, you this very woman is saying that he's a snake. Because when you understand the situation, when you understand, when you follow, when you watch the videos of Thierno the king of the king, the caliph general of the jinns, you will understand that, you are taking appearance. They can be snakes, they can be lions, they can be tigers. But this very jinn in front of us a snake, a big black snake. You see, this jinn, you this lady because he's loving this lady he, she was a child and he is trying to do whatever he can, he can do so as to prevent this very guy from being rich, from being happy in his life. You see what is happening in this very house. Thierno Moulay Sow will be then, you know, continuing his uh, healing session. He will keep on, you know, doing what he's doing and trying to solve this situation, overcome the situation, and then solve the situation once for all, and try to keep this jinn and try to make him get out of this very body. mbokku jullit yi mbokku taalibe gis ngeen léegi nag après ñu waxtaan ñu xool nañ lañ koy danga bëggoon ñu faj ko wala lan moo la indi fii tey. waaw bëggoon ñu faj man fu ne maa ngi fay dem fu ne fu ne. ñaata sëriñ nga jot a dem. si ma dem ci sëriñ gi mënul wax ci. à peu près ñaata. bëri na ma man kay xaw ma ñaata. mën na fukk wala. ëpp na ko. Mhm. waaw ci ci Dakar fii. non Dakar moom mosuma fi Dakar moom mel na yow laa fi mos a ñëw dëgg yàlla. foo leen dëkk yéen fan ngeen jógee. fi ñu jógee sori nootu guy jamaa. nootu ngeen jóge. non côté boobu lañ foofu lañ foofu laa ne waaye dëkkuma foofu. waaw maa ngi dëkk Saalum fu nootu laa jógee nootu. waaw guy jamaa lañ jógee waaw. ngeen mbooloo la jógee nootu guy jamaa léegi nag leeral nañ jabaram jinne muus moo ko topp moo nar a yàq seen sëy dèjà loolu leer na après nag foog ñu waxtaan pour mu ziar indi addiye ñu mën a génne jinne bi ci moom. moom ñaata jinne moo nekk ci moom ñaata yow kese wala am na ñeneen. déedéet am na ay seytaane ak ay dëmmu. waaw ñi may ànd parce que xale bu jigéen bi yàlla da koo may boobu rëy. waaw te borom wërsëg la. waaw te ku mu nekkal day am. loolu moo tax ma bëgg kaa yàq mu ne lu ma ko dara moo tax ay dëmmu. ak i seytaane. ñaata dëmm ñoo ko topp. ñett. waaw. waaw. te yow dañ koy feebarloo. dañ waaw. muy jàpp ndigg léegi wet li. ak bopp bi. bopp bi day waaw kay. Mhm. seytaane bi parensaay maanaam ko sol ko ngalaw. Mhm. muy xeex ak jëkkër ji di ko dóor. waaw. di ko door di ko mbàcc. moom ko jigéen. man maa ko dóorloo mu mel ni moom moo ko dóor fekk maa ko dóor waaw jëkkër ji di ko dóor waaw waaw jëkkër ji dóor na ko sax ba mu say foofu jëkkër ji foog ne moo ko tey ay tey ko won ba maa ko def ndax maa santaane pour ñu def ko waaye jëkkër ji essayé wu da comprendre lu xaaw waaw su ma ko defee ba pare damay mel ni man nit ki maa nekk ak moom ñëw neexalaat ko waat ko pour mu bañ a xam ne daa am lu nekk si jabaram jinne bi bu muus la day def dégâts ba pare génnaat ci waaye fii ah fii nag la lépp di leeree TMS TV mooy tele bu mag mooy tele bi nga xamante ne mooy feeñal lépp lu nëbbu mooy TMS TV moo xew ci jamono ah ne woon naa ko noo lay faj mun a du ma faj ne woon na nga ko Cerno moo koy faj waaw ne naa ko man taalibe Cerno la waaye Cerno lay faj mun a Cerno du ma faj loolu naa ko de léegi bu ñu discuter waaw après ñu génnee jinne bi nga am ak sa jabar dem. waaw parce que nee na moo moo moo yàq ñaari biiram ñaari biir yaa ko yàq ah? waaw sa jabar ëmboon na ñaari ëmb wala. waaw man kay xaw ma benn bi rek laa xam bi ci des xaw ma ko. maa ko ah. waaw day ëmb te du ko xam. parce que bari na jigéen ñuy ëmb du ñu xam seen ëmb bu ñu demee hôpital ñu ne ëmboo te yow dalay leer na yow da ngaa ëmb fekk jinne yi dañoo nëbb sa ëmb. dem nañ hôpital biñ naan hôpital régional. muy miir muy miir muy raanu mu dem docteur bi desul lu dul def ko tes ba xam ëmb na mu daal nëbbu ëmb bi docteur bi def tes mu ne ko ëmboo fekk daa ëmb si laa ñibbisee daal yàq ëmb bi mu ëmbalaat ko ma daa koy tarxis loo mu daanu mu ëmb bi yàqu ma teet jurukaay bi pour bu mu ko amal doom ndax bu amee doom xale bu góor bi day tekki ba abadan te dara du ko téye moo tax ma téye jurukaay bi ndax xale bu jigéen dama ko bëgg kii amee waaw te doom bu góor lay doon. te tekki ba abadan kenn du leen yàqal dara te xale bu góor gi mën na am sax mu tukki moo tax ma koy yàqal ndax ku jigéen ki man la mérito maa ko bëgg depuis ba muy xale maa ko koy kii du premier jëkkëram de. ñaaw déedéet kii mooy ñaareelu lu premier jëkkëram bi fan nga jaar ak moom. kooku xeex ay paaka. waaw jam naa ot ëtt butéel def naa ko lu ne am naa moom ñaari doom doom paaboo li ko may sens dama ko naroon a rey mais borom xam-xam la ab sëriñ bu mag la ah, loolu bi waaw looloo ko may sens waaye sëriñ bi mi ngi tudd Cerno ah, Billo Ba mi ngi tëgg Gambi Cerno Billo la dëkk xeex ak sëriñ boobu ba laa xeex ak moom chaque jour paa bi am na xam-xam mais guddi day tekki gàllaajam gàllaaj yi nag bu ko tekkee si laa koy am man ko par guddi dama koy xoj wala may ñëw mel ni gunóor ci kawam waaw di ko soppale ko ay gunóor di dugg si ay bakkanam muy sonn lu nekk ma def ko ko waaw pour mu dee mais heureusement su yeewoo day laal gàllaaj moo tax dee paa boobu da am xam-xam waaye kon dee na bu yàgg kon xam ci gàllaaj man de du ma takk gàllaaj sama ndigg amul gàllaaj parce que boo boo bu dee gàllaaj nga yor boo tekkee gàllaaj bi am problème man de sama ndigg amul man du ma takk benn téere dégg ngeen nee na paa boobu sëriñ la waaye bu xasee ba takk gàllaajam moom xëy na du ko munal dara waaye xam nga ne gàllaaj munoo ko takk saa su ne booy dem toilette da ngay tekki sa gàllaaj booy tëdd ak sa soxna da ngay tekki sa gàllaaj léegi nag boo tekkee sa gàllaaj jinne bi ne la cabax su ma demee ne ko paa bi dama ka daan nax naan ko kaay ma sang la su ma demee sang karawam gi nekk si moom suma ko dindee daam lu ma ci utiliser def ko boole ko seytaane mu sonal ko pour bu mu am ci liggéeyam dara. léegi yow paa boobu Serigne dafa doon ñaanal ay nit walla waaw da daan faj ay nit da daan faj ay jinne waaye man munu ma faj parce que bokkuma ak ñooñu. Mhm. déedéet non ñooñ maa leen jiite. waaw bu leen fajee sax day damay kulóog moom daal daw génn kër gi. boobu mu ngi dëkk dëkk bu ñu naan Touba. marché Touba Ocas. fa la dëkkoon ñu naan ko Touba Ndiare mu fay sëriñ. mais su ma leeree ni que damay mënal dara damay fexe xulóog moom daal daw dam toog toute la journée du ma teg bët mu may wër. su ma wëree fekk xam-xam génn na mu naxtaan ma balaa ñibbi waat. déedéet du ma génn si jëmm xale bi damay ànd xale bi yaa koy gàdduloo par exemple damay téye ay doomam du ñu lekk du ñu naan yor na ñaar benn Mouhamed ak benn Xasanatu Ba yaayam la ko tuddee yaayam bi mu ko yor sa amu ci moom yitte te moo koy def daanu na kër ga di xalangu xoolu ko. parce que moo leen di séparé ndax kooku dafa am bëgg-bëgg ci moom moo tax ma leen di séparé pour xar toroxal ko séparé ko papam papam sax dafa am xam-xam papa xale bu jigéen bi borom xam-xam la waaw papa mi kër ga woon ba may génn foofu na nekk fa woon ndax bëgguma woon mu fekk ma foofu kon damay sonal balaa ma agsi fii yow euh, xale bu jigéen bi bu njëkk sëriñ la borom xam-xam la léegi yow yaa fexe ba tas sëy boobu noonu di soppaleku nga ne ay gunóor da nga ne di dugg ci bakkanu paa bi bu tëddee rek xam naa nga dugg ci bakkan bi mu naan fépp laa doon dugg si moom nga ne fépp laa doon dugg ci ay tubaayam ba ci ay tubaayam ak waaw léppam léegi paa boobu noonu paa bi su ma soppaleku ay gunóor nekk si ay tubaayam di ko màtt bu ko defee muy woqat sonn ba bëgg a dee. da daan waxatu mu jig day futteeku ba set du rus doom du rus rak du rus mag day def taatu neen waaw te kilifa la kilifa gu ñëpp jox cër. lii am na solo amul solo. am na solo walla amul solo. continuer en tant que sëriñ nga nekk boroom xam-xam. jinne soppaleeku nekk gunóor dugg fu ne. nga daal di futteeku yaramu neen bu mu futteeku après waxal su nekkee ku jigéen ki ku jigéen ki bu su koo bëgg da koo forcé takk ko ah ku jigéen ki bëgg ko waaw ku jigéen ki ki ko mujjee takk nii la bëggoon naka waaw avant depuis xale lañ daloon a ànd ñoom ñaar ñu bëggante paa bi dëgër fi daal koy foqati comme ko foqati ko ma ne xaa ma ñëw tàqali leen ba pare man ma tàqali ko kam bëgg man ma féetewoo ak moom mais kee ku góor ki daa dëgër bopp parce que da bëgg te ku jigéen ki tamit da koo bëgg te bëgguma ñu am doom ju góor te bis bu ñu amee doom ju góor day réussir rawi ay mboqam ak i magam te loolu laay bañ moo tax ma sonal ko parce que mënut a ki nga xam ne moom laa bëgg man bëgguma samay mu jinne man xale bu jigéen bi laa bëgg dafa am wërsëg xale bi dafa yaru amul benn problème ku mu gis comme boppam la koy def moo tax képp kum jëflanteel ma def kooku wor ko yàq àddunaam ay xaritam dañuy jaaxle ñoo wax ko mu faj ko taaw si xees si ba ma wëlbati ko ma bàyyi ba desul lu dul alhamdulilah ma yàq àdduna kooku ndax séparé leen pour mu mer jaxasoo. waaw léegi yow. Eh, ay gunóor parensaay. waaw ay sànq mu koy mat defoon naa kanamam gi yëpp ay picc picc ñuul yaram yépp ma yàq ko. fu mu faqas mu doon ay gunóor ma koy mat te du xam dara mu naan ma lii la la ma koy naxtaan naan ko lii lii da ay feebar la jarul faj dina dañ ay picc dong la ma ko ciy defal ay pommade pour mu bañ koo faj la sama réussir si la nekkoon pour yàq ko. alors. alors donc le djinn euh, vient d'expliquer vraiment. qu'il a possédé la fille depuis son enfance et que la fille avait cette femme avait un mari auparavant, mais c'est à cause de son ex-mari, c'est à cause de ce djinn qu'elle s'est séparée avec son mari. Et son grand marabout, vraiment un marabout qui était extraordinaire, mais ce djinn vraiment se transformait en insecte et s'introduisait partout dans le corps de ce marabout et vraiment l'obligeait à ôter ses habits devant tout le monde. Ce qui est vraiment incroyable, ce que le djinn faisait et a tout fait pour que ce, euh, son ex vraiment soit tout simplement mort et vraiment la fille s'est remise avec cet homme mais le djinn est en train tout simplement de détruire leur relation il fait tout vraiment pour empêcher euh, ce couple d'avoir un garçon parce que le djinn vient de nous expliquer que si ce couple essaye vraiment d'avoir un garçon vraiment ce garçon sera un homme qu'on va tout simplement honorer entendre donc dans cette vie donc le djinn fait tout pour empêcher que cette relation vraiment ait une issue heureuse so in English you can see that you know this very djinn you know which is really a black cat you know hypnotizing this lady since she was a child. And this lady was having the first, her first husband, who was a great marabout. But the jinn, you know, was hypnotizing her and then transforming himself to, you know, insect bites and trying to make even that great marabout, you know, uh, uh, you know, wear out his clothes in front of everybody and be naked. You know, what is really incredible what the jinn was doing, you know, to that great person, to that marabu. The marabu was being naked in front of everybody, you know, because of this jinn. And then when they are, when they were separated, this jinn now, you know, hypnotizing still, you know, this lady because he says that he does love this lady. And this lady is now, you know, being with this man, you know, in this, in their couple, this jinn was doing whatever he likes to avoid them or to prevent them from having a child. What is really, you know, incredible, what is really unbelievable what the gene is doing because the gene says he does love this lady and he wants her to be only for him because this lady is a great one, this lady has a big head and this lady has a good, you know, uh, future in her life because he will, she will be having a lot of money. That's why the Jane is hypnotizing her and not willing to let her live nicely with, his, with her very husband. You see, but Chandamuleso is here. Chandamuleso then will be trying to heal this person, this human being, this woman, and try to make out the jinn, and then the, woman will be free and the woman will be living nicely. léegi yow ban maanaam melukaan yan nga yor yan façon melukaan. man su ma neexee damay soppale ko xar. waaw. xar mel nan. xar mu weex tàll. su ma neexee damay weex soppale ko xaj. xaj muus. muus yooyu laay def. beneen saa ma soppale ko gunóor. te su ma soppalee ko gunóor damay sonalaate. damay sonalaate. waaw kay. damay sonalaate kay. waaw kay. kon yow dana ngay soppaleeku gunóor soppaleeku xar xaj. waaw waaye muus mooy naturel bi. waaw bu ñuul dëgg muus la. waaw. kon yow xar xaj muus gunóor kon yow ñeenti melukaan ngay soppaleeku. waaw. léegi ban ban ban boo soppaleekoo ban ngay gën am pouvoir. bi ma doon. mooy bu ñuul. muus bu ñuul kuk. kuk. amul amul fenn fu toj. amul fenn fu rax ñun kooku lay def. bët bët yi kay day weex waaw est-ce que xale bu jigéen mës na gis sa jëmm wala jëkkëram mii. déedéet. musoo gis sa jëmm. musuñu maa gis. Mm-hmm. déedéet. waa jëkkër ji parensa dama koy naj bu bëggee yeewu fajar pour xëy liggéey. Mm-hmm. ma bës ko xale bu jigéen bi julli rek la gëm. Mm-hmm. waxtu du ko daaw ko raw. avant papa ma gaañu ma maa ko tàqaleeg yaayam xamul ki yaayam. ana ko. lu tax xamul yaayam. musu ko teg bët. ko yaayam ba muy xale. nan nga ko séparé damaa solu papaam. na ko jëlee xale bii yóbbu ko si rakk bu góor. ku naan Omar Camara. mu daal ko fay yóbbu. ma daal jël yaayam. jaxase xelam. a koy boole beneen góor. te tàggoot ak papaam papaam ñëw ma rey ko. nga rey ma rey papay jigéen kii. waaw kon kii ngeen lii dafa garaaw. xam nga boo gisee may wax loo jinne bi pour mu wax ñu histoire rek jaar jaar yi grave. nee na moom mooy moom non c'est grave ah. yaa rey yaayam noo reyee yaayu xale bu jigéen bi. dafa feebar. moo ngi ñëw ñu foog ne daa feebar. fekk feebaru man mi maa nekk ci kawam ma daal rocci ruwam si lañ woo xale bu jigéen bi ñu ne ko yaayam dee na bopp bi jaxasoo ma bëgg a dem ma fexe ba xel mi génn si man ko moom mu naan ah, magam bu jigéen bi mu boo xam ndaay baay daa koy wanaan dama ko jësi ko ma naa ko tuur la nam fexe ba mu réer magam jooju leer na ma ne bu gisee magam jooju ah kon damay yàqule ndax magam jooju dafa am xam-xam moom it parce que dañ koo doon ñoom seen famille famille xam-xam lañ xale bu jigéen yi nag daa naroon doon papaam te su ko doon woon rek du baax si man moo tax ma yàq ko te a rey papaam na papaam moom la féete woon ndax xamoon na ni kii su màggee mooy doon jigéen jox xam ne xam-xam dina ko moom ah mérité ko te dina yor borom kër goo xam ne kenn du xam nuñ koy waxee dina laal foo xam dina àgg foo xam ne kenn du fa àgg ma daal fexe rey papam da rey séparé ko ay magam xamul magam nu mel xamul ay raxam nu mel xamul kenn rakku papam boobu rek la la xam te kooku dama fexe woon benn jour mu bëgg kaa tëddee te maa ko defoon ngir mu tëddee ko ya àddunaam waaw mais far daa mooy tëddeewu ko parce que xale bu jigéen par exemple yàlla da koy jàppale kon yow jigéen bi ray naa si ñeenti nit papam yaayam bu ko jur ak papam ak raqu papam maamam maa ko damm maamam deewul ndax maamam tamit day ànd ak man ndax dëmm maamam maam xale bu jigéen waaw damm la. yaa damm tànk yi. maa damm parce que dama ne ko war rayal sa sët bi mu lànk ma damm tànk yi bëgg a ray sëtam teewul moom pouvoir dafa am lu mu rax. doonu pouvoir wu neen kese. la. sama taalibe la. garaaw na léegi nag kii buñ ko yóbbu woon tribunal est que dinañ ko àtte est-ce que dinañ ko tëj xam nga boo nee vraiment rey nit. dañ lay jàpp tëj la ah waaye jinne nee na rey naa ñeenti nit jinne kenn mënu ko jàpp kenn mënu ko tëj kenn mënu ko juger amul procureur bu ko mën a juger amul avocat bu ko mën a plaider ku dul Thierno Moule Sow fii lañuy ñuy jàpp jinne yi di leen di leen gise fii mooy cour d'appel de jinne Thierno mule lii nag dafa garaaw lu yéeme la. soo paree mayal jëkkër ji leen mbubb sa mbubb. nga ne. sa tiset may ko jëkkëram. ndax may may jëkkër sama tiset. soo ko mayee tisetam bu ma génnee si moom si jabaram ñoom ñaar macha allah fa ñu àgg kenn du fa àgg seen askan. waaw oh, pare nga pour génn ci xale bu jigéen. pare gu ma ndax dama koo bëgg waaye xam naa ni yow fu ma jaar génn ndax yow danga bon ci man nga soxor. nan laa bonee ci yow. ba may ñëw fii dama jox ndox. tudd sa tur man ko yóbbu ma kër Thierno Moulay Sow balaa maa dee wala ma rey ku jigéen ki dama ko naroon a rey ndax dama sampoon bomb ci suuf dama koo nax dama na xale bu góor bi dama continuer sa liggéey dal na fekk du moom mooy wax man maay wax waaw man ko dama continuer sa liggéey dal na mu dem ma jël sam bi sam ko suuf si bëggoon a rey ku jigéen mais dafa am benn jigéen bu ñuul bu am yaram bu fa nekkoon ak rakam bu góor ñoo ko doon jàpp waaye sinon kon xale bu jigéen bi du ex fii dama koy rey fexe génn dem sama yoon balaa nga maa teg bët yaaw moom laa naroon. da bu jigéen bi. waaw balaa ngay ñëw ndax bëgguma génn si xale bu jigéen bi xale bu jigéen dama amal njëriñ. waaw da lay que xale bu jigéen bi xam-xam ba ka yaa papam naroon na sol daf ko xaw a laal léegi nag pouvoir boobu nu ma ko def ko sama bopp xale bu jigéen bi billaahi su ma génnee ci moom ah jëkkëram de dina réussir may ko sam bu rek nga xool dara du ko téye si àdduna billaahi ku dul yàlla te yàlla boobaat du ko téye ndax yàlla xam na ni li muy def lu baax la ku góor ki lu mu am mu ngi koy def si ku jigéen ki mais maa koy def pour mu yàq ko su ko defalee àdduna la ca biiram bu ñëwee ne xuloo moom xeex ak moom ma bëgguñu ñu séparam mais ku góor ki tamit dafa dëgër bopp neexul a ndax moom it am na dara takk na dara. waaw te sangoo na dara it moo tax mënalu ma ko dara waaye kon heure bi faat naa ko bu yàgg comme na ma bëggee woon a faatee sëriñ ba. ñoom ñaar ñëpp comme que damaa leer ni que damay ñàkk ku jigéen gi ma naroon na faat ku góor ki ca yoonu géej moom laa jiital sa jakarta ba mu daanu pour ba xat mi daal laal territoire bi pour mu toj mu dee. léegi yow nan nga leen loo nekkoon loo soppali ko nan nga meloon nan nga def ba soppi am. dañoo dama xëy togg añ ba pare ma daal ne ku góor moom man jinne joxuma ko mu togg de parce que sinon ku góor ki def li ma wax. ma daa ko jox ma daa mu añ ba suur man ko yóbbu géej dama bëgg a sangu ji géej mu ne ma dew ma parce que yàgg man ko soo demul damay dem moom daa bëgg ku jigéen kii. ma xam ne su ma deful noonu du dem moom lu ma bëgg lu mu ko jigéen ki bëgg moom la bëgg ma daan ne ko ñëwoon dem damay sangu ji géej mu ne ma nañ dem mu yegg si jakartaam ma bàyyi ba yegg si jakartaam ma daal génn xale bu jigéen bi ndànk doon ay gunóor dugg si suuf ndànk ba ma ko génne ndànk dugg si suufu pono doon ay gunóor ba ma pono si la daanoo xamu sax ko daaneel bakkan wi moo naroon na laal si suuf waaye heureusement yàllaa jëm yi mu takk moo ko may sens waaye sinon ba xanam fa lay yem foofu mu mooy ñu dem ba ma daal koy wooloo ku jigéen ki ma daal jàpp loxo ku jigéen ki ak ko yóbba si biir ndox mi daal na kaañu mel ni yàlla dana ko bàyyi rek mu daa koy bàyyi moom sax dafa mujj tiit ku jigéen ki ma daa koy bës si biir ndox mi mu naan allahu akbar allahu akbar ma soog kaa bàyyi kon foofu laa koy rey ndax man damaa ragal turu yàlla man déedéet yéefar laa kay expliquer moom day nekk xar day nekk xaj day nekk gunóor day nekk muus nga résumé ok alors donc euh, le djinn vient d'expliquer ces quatre apparences le djinn vient de dire qu'il vraiment se transforme en un mouton vraiment en un chien vraiment en un insecte et vraiment en un chat noir Donc ce qui est extraordinaire, c'est que le djinn a dit que vraiment, il a toujours voulu tuer la femme. Il a tué quatre membres de sa famille et il voulait même aujourd'hui même tuer la femme quand vraiment elle s'apprêtait à accompagner son mari cher Thierno Moulay Sow. Donc quand son mari était sorti, la femme vraiment avait mis le couce Euh, donc et les jambes en haut tout simplement pour se suicider malheureusement donc la femme a été euh, tout simplement donc aidée par les voisins donc ce qui est vraiment incroyable le djinn dit vraiment il aime la femme et il va tout faire donc tout simplement pour la posséder parce que si la femme sort du corps Euh, vraiment, si le djinn du moins sort du corps de la femme, euh, le couple vraiment sera heureux dans l'avenir parce que la femme vraiment est une femme extraordinaire qui va rendre son mari riche. Alors donc, Tierno va essayer donc de résoudre ces situations. So in English, you can see that this djinn was explaining that he's having a lot of appearance. He's being a snake, being, a sheep, being, you know, a bite and being a black cat. You know, and the djinn was saying that he was willing to kill this very woman this very uh, morning because when they decided to come to see Thierno Moule Sow when his husband or her husband gave her water so as to drink, you know, saying the name of Thierno Moule Sow, she told her, bring me to Thierno Moule Sow. And then the jinn tried to cook, you know, some lunch and tell his husband, then bring me to the sea. When the husband brought her to the sea. You know, the jinn was trying to kill the woman, but the woman was saying, Allahu Akbar, Allahu Akbar. That's why, you know, finally the jinn didn't heal, kill her. You know, this you see then what is happening. The jinn is trying to do all his best, you know, to master this lady because he does love this lady and he is willing to to kill his husband or to kill her, this very lady so as to be, you know, at ease. Because he's saying that this lady must be only for himself. You see what is happening now? They are coming to see Chadna So to be, you know, helped by this great marabu, the king of the king, you know, the king of the king, the Khalif general of the jinns. You see now the lady is still moving, still moving because it is not a human being, it is a person which is hypnotized by a djinn. Donc vous voyez la femme qui ne cesse vraiment de bouger parce que c'est une personne qui est tout simplement possédée par un djinn et qui n'arrive pas à se tenir sur place. Donc Thierno Moulé Sow va de la soigner et aider le couple tout simplement pour qu'il soit heureux dans l'avenir. Waaw nga lépp ah. après ñu waxtaan addiye bi pour ñu mun koo génnee jinne bi jinne bi des fi nga ànd ak sa jabar dem nee na bu génnee sa jabar yow fi ngay jaare tekki ba faw n'est-ce lu yaa ko dégg ah waaw léegi nag lii moo kale sa laayaf kale sa àdduna léegi nag après ñu waxtaan ñu xool nan la ñuy génnee jinne bi ñun tamit ñu mën a def sarax mun a téye jinne bi fii kon moo ngi noonu mbokk yi léegi dañuy résumer parce que ñi ñaa ngi fi sonn nañ ak toogaay bi aussi waaye tamit c'est important bu ñu commencer action ñu eggali ko pour nit ñi mën a xam daal waaw léegi nag macha allah léegi dèjà jinne jinne baa ngi noonu ak sa jabar xoolal bati yi xool leen bët yi zoom leen gi ak manière bi gis ngeen gis ngeen gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gis ngeen moo ngi def yëfu gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gis ngeen gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor moo ngi def yëfu gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor xam ngeen gunóor ni lay doxee ah gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor gunóor xar xar xar xar xar xar xar xar mbee xar xar xar xaj xaj xaj wow wow wow Whoa! laa bañ man muus rek yàlla moo def man bugguma muus muus xam nga maanaam moom jinné bi nu muy façon melukaan yi muy mel moom laa ko wax bu ma nee muus mu def gunóor mu def bu ma nee xaj li yëpp pour yee nit ñi la tey mënoon nañ jàpp jinne bi rek tuubal ko mu dem mu jeex mu jeex mais foog ñu yee nit ñi parce que lu yëngal kër nar boo ko jàppee danga nga koy waxloo mu wax pour nit ñi mën a ci gagné leçon nit ñi mën ci yeewu loolu moo waral TMS TV ñëw pour yee askan bi parce que lii tey defe naa ne wax dëgg yàlla jombi ngeen ah. tantam ko yar ñaari ëmbam. opération ñaari moom ku jigéen ki sax daa ñaari doomam yépp kii waaw. maa ko def. Mhm. pour mu bañ a am doom. Mhm. maa bëggoon mu dee. xam nga sëriñ boobu daa dëgër boobu. man may ne sëriñ bi saa yu ko ëmbalee. toroxal ko dàq ko. Mhm. ba am doom mu jël si waat ko. su ko defee ma bëgg kaa tàqale moom mu bañ mu dëgër bopp ma def ñaari opération si biiram bëggoon koo raay far mu mooy xale bi kat baayam seetaanu ko woon de baayam seetaanu ko woon déedéet baayam boroom xam-xam bu mag la woon waaw xam-xam boobu nag moom la ko naroon na sol moo tax ma ray papaam papaam guddi laa ko ray du woon guddi du mës a dee guddi nga ray papaam ah? xaaju guddi laa ko waaw dégg nga loolu. bul di sori. bul lay mën a expliquer li ma def ma ne muus. xaar wala léegi ñu tënk foofu ma pare ci kii. après ñu wax ak jëkkër. alors donc. Euh... Vous avez vu euh, la scène euh, qui vient de se dérouler. Euh, la femme, ce qu'elle faisait, c'est tout simplement parce que le marabout, le calife général donc des djinns, donc l'avait poussé à faire ça. Parce que le djinn a tout simplement dit qu'il avait quatre apparences, qu'il vraiment se transformait en un mouton, en un chat, en un chien et vraiment en un insecte. Maintenant, le marabout l'a poussé à pousser des cris comme un chien, comme un mouton ou bien vraiment comme un chat. Et vous avez vu dans cette vidéo comment la femme faisait ça. C'est extraordinaire. C'est comme si c'est vraiment l'animal qui faisait ça. So you see then, uh, you know, what Chernomolesa was doing to this viral lady. You can understand uh, that Chandramulay saw was, you know, making the lady do what the, what the guys are doing, you know, the shape, because the jinn explained from the beginning that he's taking for appearance, he's becoming a shape, becoming a insect bite, and even becoming a black, a And then Charnamuleso was using the power of his genes and was making the lady do, shout as a sheep shout as a cat, and then shout even as, you know, an insect by. You see what is happening now? The jinn was explaining even that that's her, that's him who destroyed two of you know the pregnancies of this very lady and also two of the pregnancies of you know uh, the, the aunt of this lady. Donc vous avez vu dernièrement que le djinn a expliqué qu'il a eu à détruire ou bien à l'amener vers la salle d'opération à deux reprises cette femme. Il a eu aussi à obliger sa tante à faire donc des opérations et il obligeait également le mari quand la femme était enceinte de la répudier, de la chasser donc euh, de la maison e maintenant quand elle avait son bébé le, le mari revenait pour la prendre vous voyez ce qui est extraordinaire le djinn manipulait la femme manipulait le mari et le mari et de tout fair donc pour pour les séparer so the jinn was trying to manipulate you know the woman to manipulate the husband and was doing whatever you know he using all his power to separate them but Thierno is here the king of the king he will be you hailing this very lady waaw macha allah joxe leen loxo yi dafa am solo bu nit defee lu lu yéeme lu doy waar da koy apprécier man loolu laa xam gis nga tubaab yi bu nit defee yëfu concert dañ koy tàccu asantuma nag man tey li ma leen jàngal fii dafa bari te fayoo leen dara. xam ngeen lu bari yeewu ngeen fi aussi c'est normal ngeen apprécier yéen ñii seetaan aussi ngeen commentaire parce que kat maa ngi leen di yee bu baax a baax ngeen commentaire aussi di remercier di wax loo leen gis ci mbir yi c'est important parce que damay jël suma temps jël sama lépp ngir yéen macha allah ngeen di commentaire bu baax a baax di apprécier di aimer di abonner macha allah di partager vidéo yi di ko tasaare ci adduna bi pour nit ñi gën a mën a yeewu c'est important parce que lii moo yàq moo yàq dëkk bi lii moo tas. dëkk bi macha allah léegi dèjà kooku kooku léegi yow après da ngay nga si dina bi gën a moom ah léegi dañuy waxtaan pour ñu génne ko ah jinne damal toog ne nga seetaan sa yeneen mbokku jinne yi toogal noonu toogal toogal toogal jinne léegi jinne siibur ma léegi jinne bi nee naa ko na toog seetaan xale bu jigéen bi mun nga ko génn wala munoo ko génn mun nga génn xale bu jigéen wala mënoo ko génn mun nga génn kii wala mënoo ko génn hey mun nga ko génn wala mënoo ko génn hey nga génn xale bi wala mënoo ko génn lu tax mënoo ko génn bëre ma dem dama force da ngay génn xale bu jigéen bi tey force. force da ngay génn. sama yaram bi yëpp a mokk day metti bëgg ñibbi. léegi nag force nga génn ci xale bu jigéen bi. dama koy xamee ngeen vidéo bi fi bi fi daw fan yi jigéen bii la xam nga nee naa na dem toog xaar ma vérifier xam nga fin vidéo bi loolu laa wax na dem toog xaar ma vérifier voyez bi ah moom laa nee parce que wóoluwuma ko. ma ne na dem toog xaar ma vérifier ah mun nga ko génn wala munoo ko génn dama bëgg tey ñu def ko lu métti yéen ñëpp dinañ leen jëla macha allah filmel gars yi incha allah dinaa leen recevoir yéen ñëpp añaguma nag mais dinaa leen recevoir yéen ñëpp yéen ñëpp dinaa leen recevoir kenn ku ne incha allah dinañ gisante balaa ngay dem ngeen comprendre ngeen comprendre boo gisee lii dafa baax soo jàppee jinne nga jël temps laaj ko parce que di nga yee ñu bari tey am na ñu bari ñi nga xamante ne gëmuñu woon jinne xamuñu woon jinne waa gis nga waaw waaw waaw nga ne am mais xamuñu yow ni ni ñu koy décorté ni ñu koy ni ñu koy waxee ba tey xamaguñ ko des na waaye bu nekkee ah man mii man mii man maa la woo woon man maa la xoolal man maa la woo woon nekk fan résidence maa yore sa whatsapp boobu man man rek may fanaan sama néeg boobu sonn naa mais dama concentré wu sa vidéo yi dara dara dara intéressé wu ma ci téléphone sama téléphone sa vidéo yi rek bu bees bu ñëw dafa dama ko abonné day ñëw bu nekk seetaan naa ko fu ñuy waxee rek ma ne mu lay sow. ba sam ah maa ngi koy soog a ah. ndax xaw ma ko. xaw ma ko maa ngi si soog a ñëw tey mais si vidéo yi man lépp laa décortiquer man lépp lépp lépp laa xam amul lu ma jaaxal amul lu ma si mën a wax man damaa faju fu nekk amul fu nekk dem naa fa xam nga fan laa mujjee mbooro kooku mi ngi yore comme mu lay sow li may gis si néegam loolu la yore dem naa ba foofu kooku premier jour damaa dem ma jógee dakaar fekk ko mbooro mu yendu la ma fa ba jant so mu nekk si benn ku femme ak doomam maa mujjee ñëw jéngu ma ne ko yow boo ma narul lijjante nga wax ma ma dem man fanaanu ma fi mu ne waa xaaral xaaral xaaral mu def ma ay tak-tak ma dem sama yoon benn waay benn femme mu xamante man si Facebook bi mu ne ma ma yóbbu ko fa ma yóbbu ko fa Famba daa dugg kooku dafa fees dell waaye daa dugg waa ji ñemewu ko incarné daa mujjee jël bale bu ñu def mu ne ko tegal sa tànk te wëndeelu na si kër gi fukki yoon ak juróom-ñett te dafa lu ko lu mu xam man fu ma jaar yëpp. voilà man maa orienté sama bopp. parce que man maa dem ba sama xel ma xool vidéo ma xool décorti ko yëpp moom ni mu koy waxee ak nu muy jëriñ ci nit ñi yow bu fekkee danga yore dara day manifesté wu. man man man dama ko ne tat ba ma ko njëkkee xool boobu maa ngi tuuru ji sama cosaanu ñoom yaay papa ma ma commencé saw jubal fii sel mbaa daan ma ànd sama yaay man ne yaay xoolal kii sol lu xonq yi sama yaay dama ak ah, xaaral rek ma coupé yëf yi bañ ne dootuma ko xoolati mais ba ma ñëwaatee di def di def 3 jours yu nekk traitement mille li ma je ma jeexal kenn xamul lu mu toll. man man mënuma man kooru daaw yàlla def moo dugg youtube ndax man duma seetaan youtube dama ubbi rek tombé muy wax ni ku yore rab mbaa dëmm jàpp la wala nga yor feebar boo xamante ne moo la teree woor wala moo la teree julli ñool ma rocci ko ci laa ñëwee woon mënuma woon dox sax dox dem duus mënuma ko woon mënuma jonkan tànke yëpp dañu bañoo mosuma gisanteeg moom mii da waaye ñëw naa fi yoona yoona yoon saay bu wootee damay ñëw waaye mosuma gisanteeg moom bu ma ñëwee fii ba ñibbi ca géej bu ñu ñëwee fii ba ñibbi ci laa wér sama tànk yëpp métteetul suñu waa kër yee kër soxna kii ne doomu Serigne Seex doomu Serigne Seex fa laa nekk njaga ñaaw laa dëkk ñëw fii di liggéey ci moom doomu Serigne Seex Tijaan setu kii setam waaw falaa nekk Fatou Kiné si falaa nekk falaa jóge bu may dem bu may ñëw fii kenn ci kër gi yëgu ko ndax dañ may tare sama doom ji nga xam ne moo gën a fees ñépp buggu moom sax xamul fu may ñëw léegi sànq ma woo mun a xam naa fu nga jëm ci mu Moulé nga jëm maa la gën fees del borom xam-xam ngay waxal man ak kii man ak moom ba ci ba bàmmeel maa koy njëkk dee waaye man ak moom ba ba mu fekk si ma Thierno Mouleye maa la buggal sama bopp billaahi wallaahi maa la buggal sama bopp man mii du ma jine de man Ndella Ndour maa la buggal sama bopp waaw waaw tànk yi tànk yi ñoom buñ ma seetaanee ñoom ñu ma seetaan ñoom dinañ xam ñoom dinañ xam lu may wax nii du ma fen du ma tappale am naa fee fukki at ak benn kërub sëriñ ku fa nekk fenoo tappale woo boo fenee ñu génne la doo xam lu la génn moo tax yàgg naa fa sama tànk yi dafa jékki-jékki bañ mënumaa dox bu ma doon dem dus dama yàlla jéegal ci kàddu gi damay taxaw ndax munuma ko waaye depuis bu ma boo wootee ma seetaan la ba léegi dem géej ñëw mësuma jàkkaarloog yow fajoo ma defoo ma neen laaloo ma waaye damaa wér. billaay maa la gërëm sëñ Thierno. maa la gërëm maa la gërëm maa la sant yàlla na nga gudd fan. yàlla na la suñuy borom gën laa taxawu. teg na la loxo waaye dina la gën a teg loxo. yàlla na la yàlla dooleel. sa widdi woo seetaan keneen ku dul yow. ma ko addee yonente salaam munul woon dox nee bu daan dem toilette day taxaw bu daan dem toilette day taxaw xam nga ne kii ku dëggu la tey bu doon ñeneen la am na ñu bari ñi ma faj sax mais dañuy noppi ñi nga xamante ne. man damaa bëgg tuubal ma ma doon sa taalibe man mii nee la nduur fee nekk waaye yow yaa ma doy nga jox mu wérd man mii damaa bëgg nga tuubal ma may sa taalibe. man mii maaka ko sàkku ñaan ko ci suñu borom saa bu ma julee di la ñaale yow Thierno nang ma tuubal bu baax a baax a baax a baax kii lu ma koy ñaan maa ngi nii bu ma doon dem tuur nii tuur ndox nii waaw depuis bu nga wootee géej ba ma ñëw ñibbi damaa ñëw di daw suñu waa kër ma ne ko yaa ay sa ñang mu ne ma naam mu ne ko daw naa dem naa ah waa ndeeru foo jóge ma ne ko sama sëriñ moo ma faj mu ne xanaa danga kaa gis ma ne ko déedéet gisuma ko de mosuma wax ci caméra mosuma caméra mosuma tiim mënuma wax xam naa lii buñ ko seetaane nañuy waaw kii fu mu waxe lan moo ko wax loo man mosuma wax man sama làmmiñ bii daa mel ne dañ kaa téye maa wax maa wax de. sëñ bi loolu moo dogo ma ne loolu moo tax. Ah, président bi da laa war a wutal fa yaatu. Macky Sall waaw waaw da kaa war a wuutal ndax moom mi dimbale ko de jaam yi lay dimbali moom mi am na lu ko yàlla defal ñun ñi lay dimbale. population bi. wallaahi ñun ñi nga xam ne ñooy ñooy ñoo xam ne amuñu. ñun lay jàppale. waaye jàppalewul kii de. billaay bu ko jàppale woon. billaay dina dina dina gën a kontaan moom. moom Macky Sall mi. billaay na ko jàppale jàppale na ko jàppale wutal ko fa yaatu. billaay wallaahi na ko jàppale. na ko jàppale te wutal taalibe yi fu ñu ne. jinne yi fu ñu ne amatuñ fu ñu ne ñu ngi yàq askan yi. ñëpp mënatu ñoo ma nii sama jëkkër bu mu gaañoo ba léegi benn sëy laa sëy sëyatuma buggatuma sax beneen góor bëggatuma ko bëgg damaa bëggatul sax foofu sa kër soxna ki ne si foofu lañ ma mayee woon waaye maa bëggul koy fen man du ma dugg ci koy fen ndax maa fen ma bàyyi ko ba léegi nag boobu ba léegi nag bëggatuma kenn man mii maa bëggatul waaw maa bëgg tuuti. suñu borom moo mën a maye. kii xaw ma ko xamuma. njëgg ñaaw la ba mu jógee njaga macha allah maa ngi woote woon luma di maanaam def addiya suñu borom parce que parfois damay toog rek jël benn weer ne addiya suñu borom parce que ñi parfois nit ñi dañuy ñëw fi du ñu yor dara du ñu yor tous léegi ma ne leen dem leen toog soo leen déggee ma ne damay def luuma ngeen ñëw. soo leen ñëwee ma jàppale leen bu ko defee ñu dem toog bu ñi may def luuma nag ma annoncé woo ñëpp médiatiser ko ñi ñëpp xam ne mu Moule day def luuma ma woote géej bu ko defee képp ku feebar ku yorul mooy ñëw bu yàlla defee nga ñëw macha allah lu ne ci yow dañ gis ngeen ko nee na mënul woon dox ah nee na bu daan dem toilette gis ngeen nu muy def xawuma ko xamaanuma ko kon def na fi témoignage bu am solo. kon nag macha allah li ñuy def lu leer suñu borom moo ñu jox xam-xam soxor nag ak iñaan munu ci lenn Thierno Moule suñu borom defar na ko. man na xaalis man dama yor ay jinne man dama yor ay jinne lu ma bëgg ñu indil ma li ñuy def nii nag dañuy jàppale askan bi waaye nag ndimbal na ci fekk loxoy borom ñun nammuñu dara man lu ma xalaat jinne indil ma nee naa leen man ñeew ma président bi ñeew ma kenn. man yàlla teral na ma ba pare ndax nag ku yor ay taalibe jinne loo nam ñu indil la macha allah gis ngeen lii dafa am solo bu nit defee lu baax aussi euh, c'est normal ñu wax ko macha allah voyez vi waaw léegi léegi macha allahu yaa ngi dox normal. macha allah mu daaneel rek euh, sa kàddu gu mujj ci sëñ bi. daal lu ma koy wax di ko ñaanal gudd fan ànd ak taw fee yàlla yokk pouvoiram yokk dooleem yokk kàttanam lépp loo xamante ne mënu kaa faj yàlla na bu mu egsi lekk lu koy lépp lu koy gàllankoo yàlla nu dellu ci boroom ak ku mu mënta doon ak sëriñ ak keneen ak ñoo ci yem képp ku ko bugg a gàllankoor yaay yaay mujje gàllankoor sa bopp waaye du pour moom taalibe yi lañ moom dafa nekkal fi askan bi askan bi ñépp nag moom la fi nekkal ay sow pula jéeri dundal dundal dundal dundal dundal ak sox say soxna ak say doom ak say set say yàlla na nga dund ba day doxee bant na la yàlla gën a dooleel soxna Mariama Kamara mi mm-hmm. ñaanal na ma fee ci sa uh, kii bi waaw sa yaay sa yaay ñaanal na ma fii sa sal kii bi kii bi nu ma tuddati bu nga wootee woon fii waaw ah. soxna Mariama Kamara yaay ñaanal na ma fii bu nga wootee ca laylatul xadr mhm. bi ñëw naa fi man loo woote damay ñëw sal bi ñëw naa fi bu ñàkk ñàkk la ok Donc cette femme vient de faire un témoignage extraordinaire. Elle vient d'expliquer qu'elle ne pouvait pas marcher, qu'elle vient de jagañaaw mais quand elle est venue à Dakar donc le marabout le grand marabout donc le khalife général des djinns avait tout simplement convoqué tous ceux qui n'avaient pas d'argent pour se faire soigner à cause de ces djinns maintenant quand elle était venue là-bas elle a pu vraiment marcher tout simplement et le khalife ne l'avait pas connu le khalife ne l'avait même pas soigné et ne l'avait même pas vu mais quand elle est venue assister à la scène elle a pu marcher et elle était partie chez, chez elle en marchant vraiment correctement elle a même expliqué donc à, en regardant les vidéos vraiment de Thierno Moulay Sow elle arrive vraiment à être soignée tout simplement en regardant les vidéos donc de Thierno Moulay Sow ce qui est extraordinaire elle a même prié pour le marabout elle veut devenir vraiment son adepte elle a prié vraiment une longue vie et une santé de fer au marabout Thierno Moulay Sow qui est de tout faire pour aider les personnes possédées par les djinns donc so you see then this very lady you know staying in front of me she was not working at all. She wasn't able to work. But when she came from Nyaganyao to Dakar, and when the Marabu was having a big hailing session on the beach of Jamalai, you know, the lady was there. And because of her being there, she could work nicely. She went back home wor working nicely. And she wasn't even working. She was going to toilets, you know, hailing, you know, you know, bending herself because she couldn't work. But right now, when she came to Chadna Moulay, so when she saw her video, his video. Now she's working nicely. And she's even praying for Chandamuleso. She's saying, you know, praying, wishing happy new life, you know, long life to Chandamuleso and big health to Chandamuleso. Because Chandamuleso is here only to help people, who are hypnotized by the jinn. So we'll let him then continue, you know, see what will happen. jërëjëf soxna si macha allah ci témoignage bi naala la tuubal macha allah